ñoo ngi lay ñaan yow mii di seetaan vidéo bi nga abonné ci suñu chaîne bi ci suufu vidéo bi di nga gis euh, bouton s'abonner nga bës ak cloche de notification bi nga xamante ne saa ñu dugalee video rek di nga ko jot euh, directement ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina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 di julli di selmal ci yonte bi salallahu alehi wa sallam moom mi nga xam ne yàlla moo ko yónni ngir mu jële nit ñi ci réer indi leen ci jub yal nañu ko yal yàlla royloo ba ñu faatu ci li nga xam ne moom la digle ak bàyyi li nga xam ne moom la tere mbokk yi mel na ne weeru koor gi mu ngay bëgg a jeex ñuy wax rekk ne képp koo xam ne defoon nga ci lu baax na nga bëgg nga sante ko yàlla subhaanahu wa nga xam ne moo la jàppandalal ba nga mun a de joxe loolu waande ku ci defoon safaan tamit xamal ne tuub mu ngi sa kanam na nga tuub ci yàlla subhaanahu wa tuub bu sell tuub boo xam ne dafa làmboo surut yi nga xam ne mooy sartu ba kon mbokk yi euh, mel na ni weer wi su doon jeex nit ñi dafa am seen xel yi dafa am fi mu war a jëm mooy ci yeneen xeetu jaamu yàlla bokk na ci jaamu yàlla yooyu mooy génne zakatul fitr lu jiitu ñuy julli ji comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoonale mu nekk loo xam ne waxoon nañ ci wax bu gudd wante tamit bokk na ci ne weer wi su fekkent ne weeru shawal feeñ na ci ëllëg sa dañoo war a euh, julli li nga xam ne mooy iid mooy def salaatul iid an ibnu malik رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم قد أبدلكم الله بهما خيرا يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود والنسائي أنس ابن مالك نتلنا ne عليه الصلاة والسلام dafa ñëw Madina mu fekk ñoom ñu ngi feete ñaari bés yoo xam ne ay bésu fola dañ ci doon fox mu ne leen seen ñaari bés yi day yàlla weccee na leen ko wala remplacer leen na ko yeneen ñaari bés yoo xam ne ñoo leen gën mooy yowmul adha mooy bésu tabaski wa yowmul fitri ak bésu korite yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li nga xam ne doon na ko def ci bés boobu mooy su weer wi feeñee rekk dafa doon nekk di takbiir di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ni ko ko boromam sante ci alquran ndax borom bi dafa ne wali tukmilul iddata wali tukabbirullaah ala ma hadaakum wa laallakum tashkuruun mu ne nangeen matal fan yi nga xam ne moom lañ leen sant ngeen woor ko nangeen ngeen di e, màggal yàlla subhaana taala di takbiir comme ni mu leen ko digalee mu ne laallakum tashkuruun ngeen mën a nekk ngir ngeen mën nekk ñoo xam ne ñuy sant seen borom ngeen loolu moo tax yont bi da doon takbiir nett lañ ci benn xadis boo xam ne Cheikh Albani génnee na ko wéral ko ci saxiixa mu ne kaana yaxruju yowma alfitri fa yukabbiru xata yatiya almusalla fa ida qada salaata qataa takbiir ñu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon kabbaar di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillah alhamd suy génn da julli ji ba keroog muy àgg ci julleekaay bi su julli bu jeexee mu ne moom mu arrêté takbiir bi kon loolu sunna la ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci tamit su bésu korite ñëwee lamu doon njëkk def mooy dafa doon lekk ay tàndarma comme ni mu ñëwee ci hadis boo xam ne anas ibnu malik moo ko solo mu ne kaana rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallam, sallam laa yaxdu yowma alfitri xatta yakula tamrat yakuluhunna witran rawahul al moom anas nee na yonent bi alayhi salatu wassalam su doon xey di dem julli ji iit iidul fitr moy fetu korité mu ne dafa doon lek ay tandrum ci benen riwaya mu ne dafa doon lek ay tandrum yo xam dafa tuul moy dafa imper mo xam ben wala ñet wala juroom wala juroom ñaar ainsi de suite kon lolu sunna la bo xamne dañ ci wara roy yonent bi alayhi salatu wassalam bokk na ci ne moom dafa doon màggal bés boobu ci tudd yàlla subhanahu wa ci ay jaamu yàlla ci di ko sant ci di bégloo nit ñi di bëgg ci bés bi nga xam ne mooy bésu feet léegi tamit doon na digal ñépp ñuy jóg di dem julli ji ñu war ko ci roy ndax yàlla soo wa daf ñoo sant ñuy roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ayyuha alladina amanu atiu llah wa atiu rasul wala tubtilu amalakum mu ne ay yéen ñi gëm topp leen yàlla ngeen topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala tubtilu amalakum bu leen yàq seeni jëf ci loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon génne jigéen yi ñoom ñëpp ñu dem di fekkee julli bi comme ni mu ñëwee ci xadis boo xam ne ummu atiya boo ko solo qaalat umirna an nuxrija al awaatiq wal xuyad fi l iidayni wa yashhadna al atiya nee ñun dañ doon digal ku leen doon digal mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy génne ñi nga xam ne mooy jigéen yu màgget yi ak jigéen yi nga xam ne dañuy gis mbaaxu jigéen ñu leen di génnee ci ñaari feetu tabaski ak korite mu ne ngir ñu fekkee yiw yi nga xam ne ñoo fay bàlle ñu fekkee tamit ñaan yi ñu fay ñaan xutba ya ñuy fay xutba mu ne wante ñi nga xam ne ñooy gis règle ñoom dañ doon beru daanu ñoon bokk ci julli bi xadis boobu mu muttafaqun alayhi la Buxaari Muslim génne nañ ko kon léegi feet bi daf leen ci doon génne pour ñu dem bokk ci julli bi kon yii yépp ay xeetu sunna la yoo xam ne nit ki daf ko war a def ci bésu korite bokk na ci su doon génne dafa doon dox te dafa doon dox comme ni ko ni mu ñëwee ci xadis xadiisu ali ibn ali ibn abi talib mu ne min sunna an yaxruja ila al iidi machiyan mu ne bokk na ci sunna sooy dem iid ngay dox kon daanul woon war waande dafa doon dox waande war boobu xëy na nit ki su amee ngànt xëy na ci la koy mun a def wante su dul loolu moom dafa war dox mooy sunna léegi nag feet bi nekk loo xam ne lu màgg la ci lislaam mu nekk loo xam ne feetu lislaam nit ki def ko war seetlu soo ko amee seetlu dangay gis ne ñaari feet la lislaam am mooy iidul adha ak iidul fitr beneen bi ci tegu mooy iidul usbu mooy aljuma ñoom ñépp ñett yooyu yépp dafa ànd ak julli aljuma bi dafa ànd ak julli jumaa ñaari iid yi dañoo ànd ak salaatul iidayn mooy julli korite ak tabaski léegi dafa ànd tamit ak tudd yàlla màggal yàlla subhanahu ñoom ñaar ñëpp tamit dañoo ñëw ci ginnaaw ay jaamu yàlla yu màgg bokk ci ponk lislaam yi muy aj ak euh, koor léegi nag kon feet yooyu duñu ay feet yoo xam ne dañ cee war a fox kon su suñu waxee feet ci lislaam du comme feetu ñeneen ñi nga xam ne nekkuñ ci lislaam nga xam ne foo ak ay bakkaar lañ fay góobe waande feetu lislaam dafa am niñ koy defe kon dañoo wax nit ki su su jaamu yàlla yooyu rombee yàlla son dafa may nit ñi pour ñu libéré wu tuuti ñu libéré wu tuuti sant yàlla subhaanahu wa ci lim leen defal ci ay fan yu limu rek ñu war ci jaamu yàlla def jaamu yàlla yu rëy yooyu ba pare am ci yool yoo xam ne keneen amu ko ndax koor gi dafa màng ay yool yu rëy bokk na ci rek laylatul qadr bi nga xam ne soo ci jaamu yàlla mel na ne jul jaamu nga yàlla lu ëpp juróom-ñetti fukki at ak lu teg bokk ci ne yonent bi salaam dafa ne man saama ramadaan imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddam min zanbi kon feet bi su ñëwee ñu bëri dañuy yaakaar ne dañ leen libéré nga xam ne lu ne léegi mun nañ ci dugaat waande loolu erreur bu mag la ndax loolu mooy màndarga ne sa koor màndarga koor gu nanguwul ndax kii kooram nangu dafay am li nga xam ne mooy taqwallah te takk taqwallah mooy di def santaane yàlla yi bàyyi ay terem te ñu xam ne tamit weeru koor mooy jeex waande jàmm yàlla jeexul jaamu yàlla jeexul yàlla sonta dafa ne wa'bud rabbaka xatta yatiyaqal yaqiin mu ne na nga jaamu sa boroom ba yaqiin dikkee la yaqiin mooy dee ba dee kon nit ki fekk yaa ngi dund fekk yaa ngi noyyi rek xamal ne jaamu yàlla muy gàllu ci sa loos ba keroog ngay faatu moo ne isa maata ibnu aadam inqataa amaluhu mu ne nit kii su fekkee ne faatu na ay jëfam dagg na kon sa jëf fa muy daggee mooy ci dee wante du ci korité du ci tabaski kon dañu war a gën a góor góorgóorlu xam ne am na yenn jaamu yàlla yu ubbeeku suñ kanam bokk na ci ay koor yoo xam ne ay kooru sunna la bokk na ci ay julli bokk na ci ay tudd yàlla bokk na ci yeneen xeetu jaamu la yàlla yu bari yoo xam ne yàlla defal nañu ko ci bés yi ci guddi yi ci ngoon si ci Euh, jamono yi yépp ñu war ko jooxee compté di ko def comme nañ ko doon defee euh, yal nañu yàlla xiirtal ci boppam léegi incha allah ci beneen bés dinañ tudd koor yi nga xam ne kooru sunna la ndax koor ni julli amee naafila doon la amee naafila su ko defee nit ki mun ci góorgóorlu euh, ci at bi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim ñu ngi lay ñaan yow mii di seetaan vidéo bi nga abonné ci suñu chaîne bi ci suufu vidéo bi di nga gis euh, bouton s'abonner nga bës ko ak cloche de notification bi nga xamante ne saa ñu dugalee vidéo rek di nga ko jot euh, directement ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax